waaw ça va. ñoo ngi cool ñoo ngi fine kay. yéen moom da ngeen di gañ. <laughs> yéen da ngeen di gañ. lañ bëgg rek loolu ñu fi indi ah. essayer gagner après dem yóbbaale ko. alors lan ngeen bi tey. waaw nice ah nice ah. ñu ngi remercier tamit ci invitation bi. Galsen Hip Hop Awards dafa nekk euh, benn affaire bu précieux pour rap Galsen. donc euh, ñu wuyu si émission édition bi donc euh, di se gën a kontaan rek ah loolu kese la. tombé ngeen génnee seen album tamit fan lañ leen nominé. bon euh, ñoo ngi ci ah ñoo ngi ci à fond boobu ñoo ngi ci. fan lañ leen nominé nominé. ah ok ñu ngi meilleure révélation ñu ngi ci meilleure révélation akatsu bi quoi. alors gëm ngeen di ngeen ko gañ. waaw waaw si yoon bu ñu ko tegee si yoon. <laughs> ça va. xew la tey. ah waaw Galsen moo xewle xam nga hip hop Galsen moo xewle donc dañoo war a teew quoi tey xam nga. da ngeen gisee organisation bi. waaw ñu ngi koy rafetlu bu baax ah, franchement parce que ñi ko organiser ay jàmbaar nañ donc euh, ñu ngi teewal li pour hip hop Galsen donc mënuñu lu dul encourager leen et féliciter leen quoi. moom rek seen sorti yooyu yëpp. nomination bi album bi bokk révélation bon je pense que lépp si la bokk album bi jaar jaar Akatsuki li mu fi jot a def si année bi donc loolu yëpp la gars yi boole pour boole ñu si nomination ren bi quoi donc euh, noonu la demee. merci. yeah merci à toi ñu gën a nekk si game donc gars yi ñu sénégalais yi yëkkati ñu partagé ñu bëgg support ñu donc tey suñu ñëwee dañuy jox trophée meilleure révélation franchement. gan di mbégte la am teel si ñun franchement mënu ma sa wax donc maa ngi remercier tamit ñi nga xamante ne ñoo nekk suñu ginnaaw muy Ndégo Rap Music ak suñu staff mais aussi di encourager ñi nga xamante ne ñoo nekkoon suñu concurrent muy taal bi di Mr Cash ñi nga xamante ne ay rapports yoo xamante ne ils sont excellents les rapports yoo xamante ne kenn duuteetul si seen talent franchement mën nañ nekk di bëggante di saagante mais c'est des rappeurs qu'on aime beaucoup Mr Cash y a pas trop long pour nous on t'aime beaucoup beaucoup beaucoup franchement attaché donc li may wax encore merci beaucoup ñëpp di encouragé bépp boy bi nga xam ne mi ngi seen new génération bi di leen wax futur bi ñun la donc dañu liggéey bu baax parce que